bu ñu tëj déglu ndigal bàyyi terey caabi ja Seex Ibraay xeewal ëllëg lu waay ñàkk na yedd boppam leeral nga sey mbir ku gumbaat yor noppam Seex Ibra Faal ëllëg lu waay ñàkk lu waay ñàkk na yedd boppam leeral nga sey mbir ku gumbaat yor noppam amanu am nga sañ-sañu rahmaani loote buur ànd ca yaaki allahu akbar yàlla moo la jox ku la gëmul du am tuyaa bay julli allahu akbar yàlla moo la jox ku la gëmul du am tuyaa bay julli am nga maqaamaatu rijaalu laahi boole nga seen ngeneel ya indallaahi am nga maqaamaatu rijaalu laahi boole nga seen ngeneel ya indallaahi aw nga fu kenn dawul aw nga fu kenn dawul Seex Ibra Faal aw nga fu kenn dootu fa aw ci dunyaa moo tax nga am lu kenn amul ca yaa andil nga nu yow Cheikh Ibrahima Fall lu dul jeex addina ak alaaxira tey ku ne seex Cheikh Ibra Fall yow andil nga nu yow Fall njaga lu dul jeex addina ak alaaxira tey murit bu ne seex amoo morom addina ak alaaxira borom Tuuba ko wax ne bun sa xiira àgg nga àggalenu rekk moo des wa mënu yóbbu nu aljanaan boobe bis attan nga ñëpp yow la yàlla jàppale duyal nu sun yi yaa mën a séddale Cheikh Ibrahima Fall addiya yaa ko mën a bay di ko joxe te soxla woo ca dara yaa tax nu texe yaa nu mënal file mënal nu fa nu jëm yaa man kile kële mane fulaa jëm Cheikh Ibrahima Fall maam Cheikh Ibrahima Fall yaa nu mënal file mënal nu fa nu jëm yaa man kile kële mani fulaa jam yaa nu defal saadatu daaray ni wannu sëriñ Tuuba nu am nuuray ni Seex Faal yaa nu defal saadatu daaray ni wannu sëriñ Tuuba nu xam nooray ni ku la addina coonaam jeex na yow mal xiyaam day mucc loolu neex Faal yow ku la gëm àddina coonaam jeex na yow mal xiyaam day mucc loolu neex na Cheikh Ibra Faal yow ku la gëm àdduna coonaam jeex na yow mal xiyaam day mucc loolu neex na Cheikh Ibra Faal yëg-yëg la mooy tam nga nangoo man sopp naa Cheikh Ibra Fall dana wa rahmatan wa barakatu mi lay bandi adi Cheikh Ibrahima Fall